ñu bari nag eh, xëy na di koy dégg ñu bëgg xam tey na muy doxee ak kañ la fa tàmbali eh, tey itam yemoo ak juróomi weer ginnaaw bi ñu sampee eh, roi bu bees bi nga xam ni ma nga fa toogoon benn fan weeru janvier atum 2020 bi ñu nekk ñu am mbégte nag dalal ci monsieur le ministre conseiller jiite euh, euh, comité de pilotage bu projet pôle de développement de la Casamance euh, kon Sékou Sambou muy ñaareel bi yoon monsieur le ministre ngay ñëw ci dem ak Tay ñu amaan mbégte lool dalal la ci waxtaan wi bisimila maa ngi lay fay maa lay fay Fatou maa ngi leen di am mbégte trop trop trop trop ak ki nga xam ni mooy sama jaam bi comme séeréer nga <laughs> man joolaa la sa buur waaw <laughs> donc euh, amul benn jafe-jafe ba de euh, ma am yaakaar daal ni que mun na am bon lu jokkootee bi ak waxtaan bi dina amal eh, askan bi tey ni ma ko waxee kon eh, sàmb sama jaam bi dañuy ñëw ba mu lomp daal di waxtaan ak yow nag eh, ci li nga xam ni moom mooy royaume bi ñu mën a jàpp ne kañ la fa royaume tàmbalee am foofu ca gox ba waaw royaume yaakaar naa ni suñ ko naree gëstu mm. ku ñu ko jàpp dikkee sànc yaakaar naa ni xam-xam bu gàtt mooy yaakaar naa ni Misra mooy Égypte donc comme ñëpp xam nañu te lépp leer nañ leer na ñëpp ni que ñun ñii africains yi hmm. euh, fi ñu gën a ràññee africain fu mu cosaanoo mooy la région des Grands Lacs nga xam ni fleuve Nil bi ñuy naan Euh, moom moo euh, mooy arrosé Égypte mu ngi jëlee source am ci la région des Grands Lacs ndox lu am solo la ci doon di dundu doomu aadama donc euh, suñu maam ya mati maam yi doon topp ndox mi ñu dem ba Égypte fa la ñu seen maanaam seen caada seen civilisation seen aada gën a fësee léegi nag bi nga xam ne boobu dara du dara dara amul voilà am euh, maanaam civilisation gëm loolu yëpp dara amutoon donc fa la faxee ko mais si ko gàttal parce que du loolu muy waxtaan gi mm-hmm. alors donc euh, bi nga xam ne yenn doomu aadama yi meññe nañu ñu dem ba dal Égypte ba Égypte moomatul boppam ci la ñu Euh, tas ñun ñëpp moo tax boo xoolee lakk yi lakk ñun yëpp de suñu euh, maanaam suñu kàll séeréer ak joola ak pulaar fa ko donc lakkat yi aussi boo xoolee li euh, ñuy lakkee lakke yëpp benn lañu maanaam làkku africain yi benn ren lañu am muy renu Égypte donc bi suñu maam yi tasee Égypte parce que moomatuñu seen bopp te musuñu nangu ku leen noot donc ci la ñu tas euh, mais balaa ñuy laata tas ñu ngi jógewoon exil te dem booru euh, fu ñu naan te ay Arabie saoudite ak yooyu yëpp ay nit ñun ñoo ko sànc moo boo xoolee tey ñu euh, boo doon def recensement nit ñu ñuul ñi nekk dans les pays arabes di nga xam ni que taux nit ñu ñuul yi fa nekk am na doole goo xam ne li ñu naan ay jaam lañu doon yóbbu ci arab yi moo indi nit yu ñuul yooyu amul parce que ñi ci euh, ñu doon yóbbu ñaareel ay góor lañu ñu doon yóbbu parce que ñoom arab yi ñoom dañu doon def ay jaam te ñooñu nag dañu doon tàpp ñaareel hmm. kon ay góor bu ngeen yóbboo dinañ def ay jaam dinañ def tàpp meloon ni Amérique Amérique moom daanu ñoo tàpp euh, mënul man mënuñu meññ ay vingt vingt cinq pour cent de la population kooku mënul nekk mais ñooñu dañ fa fekkoon daa mel ni tey jii booba passeport amul visa amul teb koo xam ne tey tugal Amérique bu toon mbirum visa bu ñu ubbiyoon frontières yi fii euh, juróom fukki at wala téeméer at population euh, tugal gi yëpp wala Amérique yëpp dañuy doon ñoo xam ne bu ñu ñuuñulul kuk waaye dañuy xeereer donc loolu moo ñu dal ak arab yi arab yi ñoom métissage la ñi nga xam ne ñuy ñëw wal euh, envahir euh, les euh, arabes ya ñu métissé wu ak nit yu ñuul ñooñu ñoom ñoo meññ xeet bu ñu naan arab même ba ci joolaa sax am na ay baat yoo xam ne ñu ngi ci joolaa dañ koy retrouver ci làkku arab te loolu képp koo xam ne di nga sa làkk bu baax a baax a baax boo foree as tuuti ci làkku arab di nga gis mën a def la même liaison donc ma gàttal euh, royauté bi mu ngi mel ni tey kaaba gi kaaba gi ku nekk xam na ni que maanaam météore la woon boo xam ne mu jóge ci jaww ji ñëw agsi nag ci suuf boobu ni ma ko waxoon ci njëlbeen nit ñu li ñoo fa dékkoon mm-hmm. mu nekk lu deew euh, euh, lu yéeme ñoom ñu jël euh, jàpp laal yàlla moo leen walla si ñu def ko ngëm ngëm googu nag mu dem di law di law di law ba dëkk yooyu yëpp ku nekk di dem di ziare yi loolu li nga xam ne yàlla moo leen ko baaxee léegi nag bi mu ñu euh, ñi di tasee parce que bu amee dëkk boo xam ne dafa développé wu day dem ba ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo seen dëkkandoo ñu leen jege dañuy dem ba leen di siisee dal seen kaw pour tas leen tas googu nag moom la euh, africain yu bëri bi ñu wàccee ci suuf Euh, comment ça euh, euh, au sud de l'Afrique ñu mhm. indaali gëm yooya donc Elinkine bu ñu naan Elinkine moom mooy royauté mënul am tant que amul Elinkine mm. Elinkine mooy c'est la pierre noire pierre noire boobu comme di nga ma laaj après pour ma développer damay mm. maanaam damay du xuus ci mbir mi damay koy Euh, damay jàlla noonu rek. Mm-hmm. fexeel ay point rek. Mm-hmm. ku xam ne am na ci point bu la ponk bu la intéressé mën nga ma laajaat ñu ñu ñu dellusiwaat si loola. effectivement amul benn problème. alors mm-hmm. bi ñu ñëwee nag ba euh, ci euh, fu Guinée Bissau nekk léegi maanaam au sud du Sénégal bël bi l'océan moo leen moo leen bloqué. ñu commencé remonter noonu la joolaa yi maanaam ñu leen di wooye ajamaat ajamaat mooy ki nga xam ne dafa dégg maat ajamaat yooya géej océan Atlantique bloqué leen ñu remonter vers le sud alors ñu amoon xeer yooyu yoo xam ne féetewoon réplique réplique Euh, maanaam Kaaba gi parce que lu ñu gëmoon la euh, gëm yàggoon nañ ko gëm. Mhm. alors euh, ñu soog jël ñoom li ñuy naan elenkiine yi ñu ngi koy jëlee ci xëru xëy ci biir Guinée Bissau alors ci gox gu ñu naan di bii la foofu ay falaise la ñoo fa nekk. am océan euh, océan bi donc euh, fa lay dal donc ñu ñooy bi jógee di dem di remonter donc vers le nord du Sénégal mu am ñoo xam ne dañ ko yóbbaale am na lu ñoo xam ne yóbbaale wuñu ko pour dire que c'est une réplique n'est-ce de la pierre noire mm. de la Kaaba parce que gëm la goo xam ne ay junniñ junni at ci ginnaaw suñu di gëmoon nañ ko alors donc euh, bi ñu ñëwee ba fu ñu nekk tey maanaam li ngay li ngay wooyee le royaume du Mlomp euh, mm-hmm. euh, département aussi sax mm-hmm. du benn roi fa nekk mooy li Cheikh Anta doon wax ni que ay village état la village bu nekk tund bu nekk mm-hmm. day am buur bappam buur boppam booba mooy incarné woon la justice incarné la gendarmerie la police maanaam lépp li nga xam ne moo joxe état taxaw roi bi moo koy incarné tey li nga xam ne moom la incarné mooy xeer boobu bi nga xam ne mooy la pierre noire comme daa mel ni tey bu naan buur màkka bi munoo wax buur màkk te waxoo kaaba ga donc noonu la waa mulomp yore ci nga xam ne euh, mooy royaume de mulomp bi ngay wax noonu ki nga xam ne moo jëkkee euh, mi ñi ko ci waa mulomp parce que nit ñi bu Euh, tukki lu ñu ñëwandoo dafa am ñuy ay vague ñuy ñëw beneen vague ñëw beneen vague ñëw beneen euh, ci Mulomb village yi nga xam ne ñoo in ñooy Mulomb mooy Jikomol quartier Jikomol euh, Jikomol Jibeten Kaju Folong eteɓe may xayeer juróom village yi ñoom ñoo constitué Mlomp ci biir nag Mlomp googu le village de Djikomol quartier bu ñu naan Kalobon su quartier bu ñu naan Kalobon ñoom ñoo fàttaliku ni que seen maam yi daan nañu gëmoon amoon nañu roi ci Guinée Bissau bala ñuy agsi ci euh, balaa ñuy agsi fu ñu nekkate tey jii ñu delluwaat ci seen cosaan dem laaj naka la ñu leen mën a defee ba li nga xam ni gëm googu di leen ciine yi di mi ëmb royaume royaume nan la leen koy joxe léegi nag bi ñu demee comme perdoon nañu culture bi maanaam euh, baye euh, ñàkkoon nañu bind bayawoon nañu bind alors ñu delluwaat pour ñu expliquer leen nan lañu war a indi xeer bi bi élenkin bi alors buñ ko àndee ñooñu ne leen pour wane ni que kal yàgg na ci Afrique loolu yëpp dafay indi cohésion ñooñu ne leen boo leen jëlee xeer boo leen demee nii ak nii ak nii ngeen ko war a def parce que boo ko leen boo ko defee yàlla daf leen di gën a wàllu daf leen di jàppale te dina baax ci yeen alors bu ñu ñëwee xam nga doomu Adama dafa xaw a fiir ñoom liñ ci jàpp mooy lu baax la dina baax ci yéen. Mhm. alors ñoom ñu jàpp ne que suñu ñëwee ñu ne leen que boo demee leen koy euh, da ngeen di fal seen kal. Mhm. parce que ñi koy andi c'est maanaam le clan des euh, manga. Mhm. clan manga boobu seen kal ci mu euh, ci mulomp ñoom ñooy les sambu. ñu ne leen kon dangeen ngeen demee da di seet ci seen kal yi kenn nag nga xam ne moom ngeen bëgg a euh, fal ngeen dénk ko maanaam nguur gi mooy royaume bi waaye yéen yéen yaa leen nekkal les responsables de la pierre sacrée alors non seulement tenue bi moo tax boo xoolee le roi mhm. dans tout Oussouye dans tout le département d'Oussouye laa wax roi yu fa nekk yëpp boo xoolee seen colin colin gi ñaareel dafa lay fàttaliku euh, pharaon Firawna mm, waaw surtout si mbaxane ya donc mhm. incarnation Firawna boobu boo xam ne mooy incarner l'état la justice maanaam l'état de façon générale la justice la gendarmerie la police la sapeur pompier euh, le tribunal l'assemblée nationale loolu yëpp c'est le roi qui l'incarne moom le roi bi incarner waaye dans le cadre du CASA maanaam la région euh, le département d'Oussouye il n'y a pas un roi boo xam ne moom mooy le roi de tout le département déedéet ni ma leen ko waxee sànq chaque village avait son état loolu moo tax may faral di wax ni les européens ak les arabes ne nous ont rien apporté li ñu na yaakaar ni que ñoom ñoo ñu ko jàngal tey ñoo ko fentoon ñun africains ñun ñoo ko fentoon bu ñuy déplacé bu ñu dalee suñu kaw ba ñu ëppoon ñu doole ba ñu jógee euh, ci bu ñuy déplacé mhm. ñoom ñu continuer li nga xam ne ñun suñu maamati maamati maam mi ñoo leen ko jàngaloon mm-hmm. noonu la royauté yi ñëwee comme ne nga ma ma la ñaata roi ñoo succédé woon mais waa Calabon yi bi ñu ko àndee mm-hmm. ñu fii defuñu li nga xam ne moom la leen wàkkiru xëy sant mm. mais na boo demee na ngeen jox dénk seen kal maanaam ne ngeen dénkaane mm. royauté bi seen kali di waa Sambu. ñu dénk ko seen bopp. parce que daf ñoo jàppoon ni que bénéfice bi ñu ciy wax lu baax li loolu comme ci ñoom lay gën a baawaan. Mhm. waaye suñ ko joxee ñeneen kon ñeneen ñoo ci gën a bénéficié ñoom loolu la ñu jàppoon. Mhm. alors ñu fal premier roi. Mhm. malheureusement doxul parce que jaarul ñu ci yoon bi. dañoo dëngal. kooku fanam gàtt ñu falaat keneen ci ñoom seen biir la famille Manga fanam guddul mm. ah ñu jaaxle dellu këru xëy n'est-ce euh, ci di ne leen que li ngeen ñu joxoon vraiment jiguñu parce que ñi ñu solal mbaxana bi ñëpp kuñ ci solal sa fan fay gàtt loolu bokk na ci li tax ñooñu ñi nga xam ne ñaar ñooñu ñi nga xam ne ñoom lañ njëkkee fal xamuñu seen tur daal ak suñu ci ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey maanaam nouvelle génération. Mmh, ndax yàgguñu fa. yàgg na lool. waaw. léegi nag ñoo ngi leen waxuñu leen noonu nee na ngeen bu leen demee ne ngeen ko dénk ni ngi dénk royaume bi ni ngeen ko dénk seen kal yi sàmbu bi ñu ñëwee nag ñu soog a def loole ñi nga xam ne loolu la leen waa këru xëy sant ñu fal premier ko ki nga xam ne loolu lañuy moom la ñuy di ci considéré comme premier roi de Molomp mu ngi tudd Jontu sàmbu hmm. jontu sàmbu boobu ñu ko fal en mille six cent soixante cinq mu falu mille six cent soixante cinq hmm. wàcc liggéey en mille sept cent un maanaam yàlla baaxee ko mu toog ci jar bi yaakaar naa ni su ma juumul muy trente sept ans ah waaw du puukare du leneen loolu yépp day wane ne que ku nekk da ngay jéem jéem a xam fi nga jógee mm-hmm. fi nga toll nga jëm ëllëg parce que ñaareel soo ko xamulee da ngay woyof tool ni dunq mm-hmm. ah, moo tax ñen jéggal ma ma bëgg a expliquer ni que juntu moomu. Mhm. mooy sama juróomi ñaareelu maam le septième grand-père et le premier roi connu du royaume de Mlomp. Mhm. bi mu dundee trente-sept ans euh, mu nekkee temps il est contemporain justement euh, de Louis XIV donc pour te dire que royaume boobu yàgg na lool parce que mu mun na am sax mu jiitu. le royaume français parce que ne naa la deux rois se sont succédés avant Diuntu qui sont inconnus et avant ces deux-là y avait déjà aussi la structure de euh, Moulom qui est toujours d'actualité alors bi mu wàccee liggéey moom Diuntu moomu ñu fal ku ñuy naan ajooy sembu a jooy te sama maam la ma dégg euh, gëstu woon ba xam euh, kañ lañ ko fal ak kañ ko kii mais sama gëstu des na parce que mhm. ñi ci topp ñu topp ci jontu moomu euh, agaguma ci archive yi nga xam ni ñooy joxe kañ lañ leen fal ak kañ lañu wàcc liggéey donc Deuxième roi connu du royaume de Mlomp, c'est Adjoy Sambou. am na ñuy prononcé Adjoa waaye yaakaar naa ni Adjoy la mooy deuxième roi connu bi mu wàccee liggéey ki nga xam ne muy ëllëg sambu Fallou ëllëg moomu falu ba wàcc liggéey ñu fal Andine Sambou Andine Sambou moomu falu ba wàcc liggéey ku gàmmi xo Sambou falu am na ñuy naan ku gàmmi jo ñuy naan ku gàmmi xo comme binduñu woon wàcc maanaam xam ngeen ni que Afrique dañoo demoon ba ñoo inventé écriture bu ngi demee ba ci déplacement ay nit bu ngi la nootee li nga jëkke def mooy jéema a sa bakkan première chose c'est la sécurité loolu la Santa Diop di naan la sécurité doit précéder le développement munoo développé wu te fii amoo sécurité léegi nag bi ñàkkee écriture yi parce que le plus urgent c'est la sécurité et la survie ñuy raconter li yëpp de bouche à oreille dans le cadre de l'initiation ci lañu lay wax yoo xam ne waxuñu ko woon profane noonu la ko Gamidjoo nekkee cinquième roi connu de Moulom. Hmm. bii euh, ku Gàmbi Jóob wàccee liggéey ñu fal axumu seel sambu ñi ma lay wax nag ku nekk concession bi nga xam ne fa la juddoo fa la euh, toog muy nekkee ci euh, der gi mm. léegi concession yi yaa ngi fi seen setaat setaat setaat ñu ngi fii xam nañ leen bu baax a baax donc axu monsieur Sambou Fallou moom moo nekk cinquième roi euh, cinquième roi bi nag kooku xam nañ ko bu baax a baax parce que fekkee nañ ko suñu maamati maam la mooy si loon di fu Sambou hmm. mu ngi toog ci der bi en mille neuf cent neuf wàcce liggéey mille na ci li mu meññee suñu pap wala suñu maam ku ñuy naan Casimir Sambou nekkoon na ci cabinet Émile Badiane nekkoon na aussi euh, représentant de l'État du Sénégal au Vatican donc moom mu ngi toog am mille neuf cent neuf wàcce liggéey am mille neuf cent soixante dix maanaam su ma juumul trente neuf ans la toog hmm. bi ma wàccee liggéey am mille neuf cent soixante dix si bu kuyaan sambu ci concession bi ñu naan jiwoon mu fàllu 1974 ba 2000 1974 euh, euh, donc kooku non pardon excusez-moi. Mhm. ci doon defu mu ngi toog en 1909. wàcc liggéey mille neuf cent soixante yaakaar naa ni loolu laa jëkke wax te mu may mm. mm. dama jum tout de suite ak ki nga xam ne moom moo topp ci moom mm. bi mu wàccee liggéey en mille neuf cent ci lañu soog a fal si bu kuyaan sambu mu fàllu wàcce liggéey en deux mille donc li nga xam ni moom nga tudd sànq li sama cousin ci lakkum maanaam euh, bu dee euh, France la ñuy wax sama cousin la waaye bu dee nu mu tudd euh, ci làkkum africain du cousin amul ay frère lañu mhm. sa doomu ndey sa doomu rakku yaay sa sa yaay la mhm. sa rakku pap sa rakku doomu sa rakku pap la sa magu papa sa euh, sa doom la donc moom mooy sibile sambu hmm. nga xam ne papam sam papa mooy magu papam d'accord donc kooku moo falu en deux mille vingt ji donc boo calculer royaume bi ci boppam bu mu amee ba léegi hmm. donc mun naa ne que war nañ ko situer à peu près ay quinzième siècle au moins sinon euh, quatorzième euh, siècle d'accord kon su ma la déggee Samb nekkul ne mhm. euh, comme royaume yi nga xam ne euh, papa bi bu wàccee doom bi moo koy wuutu après beneen dombeex yooyu kon ca mu lomp demeewul noonu demee na noonu waaye demewul noonu parce que dama la bëgg expliquer mooy en Afrique mënuma ko wax ci wolof parce que du làkk ba ma nàmp mhm. ngeen jéggal ma wolof yi ma jéggal ci dàmm yax yi léeg-léeg mhm. jëm na ah, ah, wat rax rax dolli ci mhm. accent bi parce que joolaa buy làkk wolof moom day xaw a metti tuuti baax na leer na Samb euh, mooy l'apparence et l'essence ne coïncident pas boo xoolee en fait ñetti famille la ñetti famille la fa la euh, royaume bi di tourner parce que bi ñu jàppee ki nga xam ñoom bi ñu demee këru xëy ñu jox leen nguur gi. Mm. bi ñëwee defuñu ko ni ñu la ko eh, ni ñu leen ko waxee mais nag dafa am incident bu am mooy bi ñu jàppee juntu moomu mi nga xam ne c'est le premier roi connu buñ ko toog eh, bu mu toogee ci der gi comme ñee ñi nga xam ne ñaar ñi ko jiitu mm. gudduñu fan. Ali mi nga xam ne moom mooy magu juntu ci xelam mu jàpp ni rakkam mun na am du gudd ni ñee euh, ñi ko jiitu meloon mu def loo xam ne dafa am sacrilège mm-hmm. maanaam dañoo jàdde yoon diini yi lu mu jàddee euh, magam googu magu juntu boobu lu mu jàddee yoon bi mooy dafa ne fi ñu ko denc parce que xam nga foofu tamit Afrique dafa xawul mu euh, utee ak yenn yi xale yi war nañ di gëstu bu baax a baax a baax a baax a baax di xam seen cosaan Afrique lan la bañ ko suufeel rek mm. ne lii dafa euh, baaxul mm. dafa araam affaire seytaane la affaire nangam nangam la loolu daa fekk ki nga xam ne moo la noot mooy ràgg sa xel mais bu jéem a xam fi nga jógee fan la hmm. donc euh, jontu magam bi euh, Aline am na sama benn rakk boo xam ne de moom la tuddee doomam il est actuellement sax euh, sama doom boobu il est actuellement étudiant alors mi mu euh, mu jàpp ne que rakkam boobu kon du gudd fan mu ne fuñ ko lax parce que en Afrique Europe ak arab yi ñoom xam-xam la ñuy jë jiital pour fal foog nga dem jàng jàng gu mag ci université arabe bëri xam-xam wala nga dem jàngi tugal day am xam-xam ñu jël la dénk la kilifteef Afrique daanu ñoo defee noonu ki nga xam ne moo doon kilif mooy doon ëllëg kilifa gi dañuy seet ki nga xam ne moo ko gën a yelloo maanaam lii signe que le cosmos et le wone di won sages yi ñi nga xam ne ils sont initiés am na lu xew lu mag luy xew maanaam am na ku mag koo xam ne la juddu ci tund gi hmm. ñu koy transmettre d'initié à initié bu demee nag ba moment ba jot ñu observer que xale booba buy sàmmi buy dem béy bu ñuy dem foy ndax jub na déggu na qualité yooyu moom la ñuy naan buur parce que bu ñu naan buur mooy ki nga xam ne moo ëpp les meilleures qualités possibles boo ne mala buur na xar mi buur na wala nag mi buur na mooy te l'animal qui a les meilleures qualités possibles donc loolu la ñuy fale buur waaye du caageen ni hmm. kii mooy taaw ci kër gi moom la ñu war a fal forcément wala kii forcément ci famille bi moom rek moo fa nekk donte matul ñu fal ko hmm. buur déedéet dañuy seet ki nga xam ne moo yor les meilleures qualités possibles d'accord parce que xam-xam bi dañ la koy sol rek képp koo xam ne am nga qualité yi maanaam mandoo nga jubu nga déggu nga am nga fit ainsi de suite soo ko amee ba pare. Mhm. loolu moo jafe loolu kenn du kenn du ko sol nit. déedéet mhm. kenn du sol nit ay qualité qualité yàlla moo koy def di doomu aadama léegi nag xam-xam bi bu la falee ba noppi ñu continuer na ñu tàmbale la di lay sol xam-xam. loolaa tax sax dañu naan diw diw moo ko sol mhm. comme tamit euh, yàlla ci baaxam déggoon naa as tuuti de Cheikh jëp Diop euh, ñu bëri ñi nga xam ne jege jegewoon nañ ko dañ na daan naan Cheikh Anta Diop euh, Cheikh Bamba moo ko sol parce que moo ko jàngal alxuraan loolu moom lu wër la mhm. que Cheikh Anta yi keppaaru Cheikh Amadou Bamba ci la jàngee alxuraan ñi am na ñoo xam dañuy jàpp kooku moo ko sol pour revenir te li nga xam ne sol gi ma wax sànq donc moom juntu bi ñu ko beree dugal ko ci bois sacré bi pour sol ko magam ne loolu du am daf koy dem jëli foofu te loolu moom ka sacrilège la alors ay kàngam comme juntu euh, alim ci boppam bi bu bëggoon def loolu ponkal la woon dégg nañ que ponkal lañu ñoo la woon am doole ainsi de waa Karaboon ñi nga xam ne ñoo jàppoon ñoo toogal do euh, rakkam ñu dem ba jaaxle comme kooku borom doole la woon ñu jël ko yóbbu ko ci quartier ba ñuy naan Sengaleen ci xaar ñooñu tamit ay kàngam lañu ñu woon ay ponkal la ñu woon léegi nag lan juntu def euh, pardon Aline def mu dem jëli le tambour sacré mi nga xam ne moo war a consacrer l'événement de la sortie du roi Juntu mu jël ki booba euh, maanaam tambour sacré bi réeral ko la a fait disparaître le tambour sacré ce qui est un sacrilège léegi ñu waa bon ñi nga xam ne ñoo toogal rakkat ji ñoom ñoo dem jëli uti euh, beneen tambour pour def les manifestations de la sortie du roi waaye ñu def ci seen xam-xam en disant comme kenn xamutoon kàlla dañ ko soupçonné que moom la waaye kenn xamul kàlla dañu ne ki def li mbir mi buñ feeñee moom tamit dafay disparaître donc di ni feeñee moom effectivement alim ci boppam tamit moom mu disparaître bi mu disparaître waa Kalabone comme famille bi maanaam euh, suñu famille dañoo def sacrilège kenn dootul fafal roi tant que purifié wu sacrilège boobu nga xam ne moom la Aline def bon émission lañu nekk. ngeen dëgg ma hmm. euh, yàlla ci mbaaxam je suis initié quand def naa initiation yi nga xam ne ñoo toll ak sama at quand même euh, mais ma wax lépp kooku moom je suis tenu li tubaab di wax ni je suis tenu par le secret hmm. de l'initiation hmm. am na loo xam ne mën naa ko wax am na loo xam ne moom akul yàlla du mu ko mus a wax mukk voilà donc nii la mbir mi demee léegi Aline ci boppam bi mu jéggee géej gi dem au côté de la rive droite du fleuve Casamance mu meññee fa ay mu fa ay meññeef ñooñu xamoon nañu que ñoom seen maam mu ngi jógee ci kaasa ñu tamit suñu maam yi ak suñu maamati maam yi daan nañu raconter que voilà nii la mi demee waaye au ñu génnee ñu def libation yi ñu war a def pour sacrilège boobu deñ kenn defu ko yàlla ci mbaaxam bi ma commencé euh, bi ma jàngee bi yàlla ci baax mbaaxam yi yóbbum euh, naa ma génn sama premier poste moo doon Oussouye laa laaj ma dem liggéey euh, j'ai travaillé à aussi comme percepteur ci laa dajale sama papa yi ak sama maam yi ne leen comme dafa am sacrilège bu nekk bu fi nekk boo xam ne dafay euh, daf daf ñuy dab ci famille bi léegi li laaj pour génnee maanaam sarax bi ñu war a def pour ñu set bëgg naa pare na pour euh, ku nekk lu waaye di am ñu def ko pour ñu génnee sacrilège bi noonu la ñu génnee sacrilège bi en quatre-vingt-cinq alors biñ ko defee comme déjà Ndiountou moom wàcc na liggéey il faut ñu fal keneen mais la grande famille sambu ci la ñu fal ki ma leen wax ni que moom mooy euh, Adjoy sambu mhm. donc léegi ñeent famille yooyu nga xam ne euh, bu Ndiountou lu la concession mooy suñu concession boobu mu tudd Kayoon Ajoy Sambou waa eh, Jiwanti la ëllëg Sambou eh, concession di eh, Dikaay Andine Sambou concession de Balow ci concession yi nag ci la royauté di tourné kon nag du question diw mooy mag mu moo war a falu déedéet celui qui a réuni le meilleures qualités possibles. voilà donc xaw ma ndax tontu naa question boobu. waaw tontu nga ko donc euh, soo manti dem càkkee ma dans le département de Souy la royauté day tëb. d'accord bu nekkee ci telle famille direct c'est une grande famille c'est la même famille mais bu nekkee ci famille bi sangam bi kooku wàccee liggéey beneen famille mais ci famille booba képp kuy mag euh, du ko fa du ko fa gën a mag euh, mooy falu déedéet ki nga xam ne ki a réuni les meilleures qualités possibles mooy li ma leen wax sànq ci wàllu buur baat bi ci boppam buur lu muy teg xaw ma ndax tontu naa la am déet. tontu nga ma waaw Sambou léegi sànq yaa ngi wax ci ndoxteel bi nii euh, dañu leen dénk ñoom ñuy gérer royauté bi wante euh, côté spirituel bi maanaam lu jëm si wàllu diine bi ak xëy na yenn yu yi ña leen ko dénk ñoom ñoo koy toppatoo euh, justement aspect boobu lan la ëmb. Afrique dafa bëri secret yoo xam ne kenn du ko xam. Hmm. soo ko xamee tamit. amoo benn sañ-sañ pour wax ko. d'accord nga déjà am na séparation ñële waa Kalaboni. waaw sant Manga. waaw ñu mu ñoo yor côté spiritualité. Mm-hmm. mais côté maanaam euh, mbirum àddina bi buur moo koy gérer. Mm-hmm. mooy li ma la wax mooy c'est l'incarnation de l'État. loolaa tax d'ailleurs boo xoolee même buur si li jiitu ñoom euh, balaa l'islam di ñëw par exemple moom l'islam laa war a jëkki jël parce que l'islam arab yi ñëw fi jëkk ñëw balaa tubaab bi di ñëw mm-hmm. dañ lay wax ni que par exemple buur Jolof buur euh, Siin buur Saalum nest ñoom ñëpp wala waalo bu ñuy fal buur ñëpp ay teewee Ça, c'est le côté euh, donc de l'État. waaye bu ñu ko falee ba pare lañ ko yóbbu ki xam ne moom mooy sacré bi le sacré là seuls les initiés le savent ce qui se passe ba ak ni koy gérer. waaye kenn du ko wax kenn du ko wax rawatina kenn wax wax ko koo xam ne si tom profane il n'est pas initié. Mm. rawatina rax dolli. ku mel ni man tey. ma mm-hmm. koy wax ci rajo. Mm-hmm. kooku moom mënul nekk. Mm-hmm. dëgg la Sambou. Euh, mais c'est la séparation entre le et le temporel. d'accord. voilà mhm. mais tout cela incarne incarné par le roi depuis le pharaon moo tax bu ñuy xas pharaon mhm. <laughs> man daf may def ay mhm. parce que pharaon du nit pharaon titre la. titre bi la waaw. ni nga ne président. mais président kan. Ah. Oui, aujourd'hui, au Sénégal, on a la chance d'avoir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Mm -hmm. mais am na keneen koo xam ne moo fi nekkoon avant moom. waaw kon nag tey bu ñu demee ba euh, ñi nga xam ne dañu noot dem ba di ràggat suñu xel yi dañu naan ñu euh, par exemple président ku bon la. Mhm. mais ban président nañu wax ban président mooy ku bon kii. tous les présidents ne sont pas forcément mauvais. tous les mhm. rois ne sont pas forcément mauvais. Mhm. tous les pharaon ne sont pas mauvais. Mhm. nañu wax ban pharaon moo nekk ku euh, euh, mooy ku bon ci mhm. te actuellement xam-xam wane na ni que Afrique Égypte musul am esclave. Mhm. donc il y a jamais eu d'esclave. les euh, les juifs n'ont jamais été traités comme esclaves en Égypte. ils ont été des ouvriers et comme ñun man fonctionnaire la mm-hmm. <laughs> inspecteur trésor la mais yàlla ci mbaaxam ay nit yilif nañ ma am na ñu may yilif mais mënoon naa soxor kan mën naa soxor ci samay agent est-ce que ça veut dire que tous les inspecteurs du trésor sont méchants avec leurs agents non il faut dire le précepteur ou l'inspecteur du trésor ou bien le comptable Sékou Sambou ku bon la woon. Mhm. loolu mun naa comprendre mais munu ma nekk tous les inspecteurs du trésor sont mauvais tous les mhm. fonctionnaires du Sénégal sont mauvais loolu mhm. munu nekk. dëgg la Sambo alors euh, ñu bugg a xam tey euh, roi bi nu muy doxalee foofu naka la nekkee ak kilifa yi nga xam ne état moo leen fa teg maanaam lu mel ni gouverneur lu mel ni préfet ak yooyu naka la ñuy doxalee ak moom est-ce que parfois doo am collision euh, ci responsabilité oui xam nga àddina day dox. Mm. damay faral di wax ne ñi ñi que euh, mënuñu man ci sama gis-gis mbox bu gàtt ne fa sama alwa guddul sama jàng sorewul waaye daa ma jàpp kenn mënul tere àddina di avancé hmm. kon bu jëkk dans tous les pays du monde y avait lu ñuy wax état théocratique un état théocratique mooy par exemple nga xam ne euh, sama mbokku séeréer yi <laughs> sama euh, sama mbokku euh, njaago yi ni ñu may dégg. Mm. maanaam bu ñuy tooñ naan ñun ay ceddo la ñu woon. Mm-hmm. oui mais ceddo lu baax la. Mm. daa fekk aussi jamono joojo état bi ñëpp maanaam boo jëlee Siin wala nga jël Saalum wala nga jël Munop ji ma la wax. Mm. ñëpp ñoo bokk gëm ñoo bokk diine. diine googu gi ñëpp gëm ki nga xam ni euh, mooy le roi moom mooy attee parce que foog mu am ordre social du ku nekk jóg rek def la neex déedéet mhm. donc waaye roi bi moom ci boppam comme ñi koy fal c'est tous les représentants de l'État ñoo fa nekk ñoom ñoo war a voter les yi nga xam ne le roi est obligé de les appliquer ci sama gëstu bu gëstu bu gàtt sama bokku séeréer yi dégg naa sama benn xarit ndeysaan yal na ko yàlla xaaree àjjana mu bëri ndeysaan génn na àddina bu mm. bëri xam-xam la woon parce que te euh, arabisant la woon te dafa amoon il était spécialisé en poésie arabe daan na ma expliqué ne la bu ñu falee buur parce que dañuy signe yi ma la wax sànq dañ koy observé ci nit ki boobu mu ngi nekk xale xamul te ñu doon na doon kilifa buñ ko jëlee ba noppi njumte am wala mata di am de sorte que lu ñu yaakaaroon ci kooku amul dañ koy destitué hmm. nee na ma dañ doon dem effectivement ci booru garab gu mag def pour bi di naan ajabata ajabata ajabata ajabata ajabata ajabata duñ demee ba def libation ñu war a def kooku dafay wàcc liggéey. Hmm. par force dafay wàcc liggéey. donc ñu bañ a jàpp buur ñu na xasee nga xasee fal ba noppi war nga def lu la neex. Hmm. donte da ngay bu ndextel waa tund bi wala waa dëkk ba déedéet donc loolu moo doon royauté. Le roi, le roi, il incarne tout cela. Il incarne la spiritualité, il incarne pas mal de choses, mm -hmm. n'est-ce ñi nga xam ne ñoo yor le côté spirituel ñooñu beneen la ñu doon. d'accord parce que dañu doon bañ Afrique dañu bañ benn nit. concentré en mm-hmm. son sein. Mm-hmm. tous les pouvoirs. Mm-hmm. bu boobaa day beew. ngeen baal ma ci waaw. yomb naka alors ndax roi bi am na ñoo xam ne daf leen di tànn ñu koy dimbale ci liggéey bi ndax dañuy faral di dégg buur ak i daggam ndax euh, buur mu la moom day am ay day dag. mais toutes les royautés yëpp sont pareilles. Hmm. royauté daa mel ni l'État nee naa. waaw le président et ses ministres d'accord. Ah, xam nga déjà fii <laughs> bon euh, euh, ñun nañu premier ministre. Mm-hmm. n'est-ce mm-hmm. amuñu léegi premier ministre mais am nañu secrétaire général de la présidence. Mm-hmm. moom moo nekk diggante moom ak waa nguur gi muy jawriñ ñi donc état bi nu muy fonctionner tey noonu la ma sa fonctionner depuis suñu maam yi depuis l'Égypte pharaon yi ba léegi noonu la demee mhm. maintenant différence bi mooy le temps nous impose yoo xam ne on est obligé de tenir compte de l'évolution parce que tamit suñu maam yi dañoo jàppoon ni que àddina dafay évoluer en spirale yaakaar naa ni boom am na nee naa la sama ñàkkum déggum olof euh, dina ma lor parce que mm. spirale <laughs> yi mën ma ko wax ci wolof waaw waaye yaakaar naa ni ñi ñi comprendre nañu luy spirale mm. mooy évolution la boo xam ne c'est infini mm-hmm. et à chaque tour complet on est à un point supérieur à celui du temps T moins mm. loolu mooy évolution spirale donc dafay am toujours ay réformes qui nous permettent de faire de bons qualitatifs mm. mais buur bi amul benn possibilité moom mu toog moom kenn mm-hmm. décider tout seul sans concertation D'accord. Sans l'aval de la Cour royale, c'est la première qu'il a une Cour royale. Mm -hmm. La Cour royale, c'est l'équivalent du gouvernement. D'accord. <laughs> kon il faut mu am euh, peut-être euh, aval euh, lu a bëri si nit yi. maanaam majorité d'accord d'accord <laughs> d'accord. xam nga na naa ci wàllu xam-xam. Hmm. ay kay aw ko sax. Hmm. damay tàppale rek. Hmm. donc ñoo xam ne dañ doon c'était au Ghana. ma ni daal est-ce que vraiment le monde a évolué. est-ce que le monde a vraiment évolué. on vous dit que c'est le roi qui décide. Hmm. Mais ce n'était pas le roi qui décide, il décide avec la cour royale. Hmm. Mais aujourd'hui, le monde entier, quelles que soient les formes dont on a aujourd'hui, euh, que l'on a, mmh. est-ce qu'on n'est plus avancé que les pharaons Parce que si le pharaon s'entend avec la cour royale, mais il règne en absolu. Maintenant, si un président de la République élu soit-il, c'est la seule différence, c'est qu'il est élu aujourd'hui au suffrage universel. Mais Boudika aussi, même dans les euh, peuples où il y avait des castes, nest pas mhm. euh, Entre parenthèses, on confond souvent en disant que des esclaves. Ni man japana ni ni ni que esclaves en Afrique, c'est la boque. On a eu des castes C'est-à-dire c'est une division des, du, du, travail dans la société. Hmm. ñun ajamaat yi ñun joolaay amuñu ay kas mais boo jëlee la société du nord te loolu Cheikh Anta Diop leeral na ko fépp fu am fas naar fas naar bu góor hmm. am na ay kas ñun amuñu fas joolaa xamul fas épp hmm. <laughs> niñ la épp niñ la xamul ko donc loolaa tax mais ki xam ne mooy uude bi mais il il est présent quand on va élire le roi traditionnellement. Hmm. Euh, ki nga xam ne mooy tëgg dañ koy euh, il est là il joue un rôle important dans la société. Hmm. ki ñuy naan nu mu tudd jaam. jaam c'est-à-dire que servant ce n'est pas esclave parce que pour wane ni que loolu man loolu laa gëm bokk mën naa jum man loolu laa gëm. Hmm. ni. Euh, ban société ACAS en Afrique la buur wala géej gi mën a jël euh, mën a tëddee jabaru euh, euh, géwél gi wala doomu géwél gi kan fi ban buur wala ban géer moo mën a ñëw nangu alelu ngir euh, jaam wala tëgg wala leneen. Mhm. amul Cheikh Diop leeral na ko faram-fàcceel na ko ba mu leer. Mhm. bu dee mbirum àddina rek la l'homme à caste est privilégié par rapport au au noble bu géej géwél bi ñëwee ne la ah euh, sama géej gi xar mi bëgg naa ko parce que dama tudd. mais le guerre est obligé, il est tenu moralement de lui donner le, euh, le mouton. Mm. C'est pas pour rien que euh, euh, Guéveli dit que, en effet, les bon, ça disparaît. Et aussi, les gens, certains même, sont moins fiers de dire que man jam la, ma lol, man Guéveli la. De manière que, un an, à mon âge, ça m'a donné un mag. Hmm. Bon, ramené. ndeysaan yàlla xare àjjana je donne des références pour que li nga xam li ma wax dëgg la te j'ai de promotion qui peut vous m'écoutez amoon na mag boo xam ne mën na ko maam dafa nu ñëw di koy bës. Hmm. suñ ko namee papa pour nga dem mu ne non non kii sama jéer la man jaamam laa. Hmm. se fierté. Hmm. c'est aujourd'hui la ñuy jël bon les gens nous ont fait un lavage de cerveau le suñu maam yi bayoon yëpp dañu ñagasal léegi. moi j'aurais été dans une société né dans une société à caste Il a en fierté parce que ñëpp fekk contribuer et penser que li mu euh, contribution am moo gën a am solo. te une fierté. laa tamit ñoom Cheikh Anta borom xam-xam bi ne nañ ko li nga gis ko <coughs> excusez-moi di nga gis koo xam ne géwél la wala ñeeño maanaam ñeeño la n'est-ce pas mu am doomu géer boo xam ne dafa bëgg a doomam day bañ nag sama doom du sëy ak euh, géer Mm-hmm. wala fi eh, géew yi da dégg ñu naan la ceeb bi dafa géeree trop waay. Mm-hmm. ñu naan ceeb bi dafa géeree trop. Mm-hmm. maanaam c'est géwél yi nga doon lekk li nga xam ne lu neex li am na tey tam am na ñoo xam ne desee nañ ko ba léegi am na tey tey tey ñoo xam ne soo leen ne woon tey delloo li nekkal li nekkal géer mais duñ duñ ko nangu. parce que li ñuy am en tant que géwél wala en tant que ñeeño xam nañu ni que suñ nekkoon jéer du neexee seen bor wa euh, euh, maanaam ceeb bi du tooyee nu mu tooyee na mm-hmm. <laughs> seen boor <laughs> jërëjëf Samb voilà jërëjëf am na solo ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci waxtaan wi euh, vraiment am nañu lu bari lu ñu jàng ci euh, Moulamp ak euh, yeneen gox yi mel ni moom nga xam ni xëy na waayute moo fay dox ba léegi dugal nga ñu ca biir ñu xam dëgg-dëgg na muy doxee ak itam fan la soqee ko am nañu mbégte mu rëy ci sekkoon ak yow waxtaan wi fàttali ni yow yaa jiite comité de pilotage bu projet pôle de développement bu Casamance ministre conseiller nga nekk Koninga itam député ci Sénégal inspecteur du trésor de formation Sékou samb ñu ngi lay sant di la gërëm ma ngi lay sant ma ngi lay gën nga baal ma mhm. ak wax auditeurs yi mhm. wax dafa jafe dëgg la rawatina wax ci kalaama goo xam ne nampoo ko mhm. maanaam am su amee lu ci jub lu ci ju euh, lu ci dëng ma ngi jéggalu ci auditeurs yi du ci lu ma jublu rawatina ak ak at yi maam tey jërëjëf Euh, mhm. lakk euh, wax dafa jafe rawatina nag mun naa ma am xalaat loo xam ne mhm. bu taaru la ma bëggoon ko wax mhm. waaye euh, la am xam-xam bu doy wala boog làmmiñ bu setul tax bi ma juumte am ba ma ngi jéggalu ci képp koo xam ne maanaam wax naa loo xam ne naxari na ko man ngi ciy yëgalu bu baax a baax baax ci cher auditeur yi mm-hmm. jërëjëf Samb jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax kon mbokk yi mu doonoon seen émission démb tey euh, ñu doon ci dalal euh, Sekou Samb euh, gërëm Diaw Diallo mi fare woon ci machine bi gërëm leen itam yéen ñi doon teewlu Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen yéen doog jàmm